maa ngi waaj nag ilaa Touba rek sëriñ bi allo. Eh, Adja ba Boy moo bari solo ndeysaan jom jee bëri sëriñ fan looy sëriñam na def kii nag nag bi ma rey ba tax ma dugg see Dakar ñeme ndax ba ma tawatee maam daf maa fëgg ne ma boo reyu doo jóg demal téeméeri hôpital xaaral ma ñëw polim dugg ci allo.

allo na nga def soxna si sant yalla alhamdullilah yalla nga sant yag ya ngi jokkoo ak ajaratu daba boy da nga bëggoon leerlu wa dama bëggoon leerlu mune sa bop day teju lu bari bari mune lila jaxal day dañ sa bop day ub rek way di nga re na nak way day bax d'accord mu ne ma chérie bul découragé wutal lem-le mu yëre nga boole ko xorom akub saabu yaa ngi génne mm. cat yaa ngi saraxe génneel cat mu ne boo ko defee dina baax mu ne lépp la metti woon incha allah day dañ te góor gi di ngeen waxtaan ba déggoo fan ngay wootee maa ngi ngay wootee maa ngi nuyu waa France ba biir Bordeaux Paris Paris yaa ngi Paris maa ngi nuyu Paris di nuyu waa ñëpp di nuyu d'accord <laughs> maa ngi kontaan nañu jërëjëf jërëjëf ñoo la gën a bég mu ne xel ñaar bëggoon nga xoolal ma tuuti mu ne xel ñaar guy dañ ci yow borom France waaw waaw mu ne am nga xel ñaar waaye day dañ jëndal dàllu der ak dàllu marakis d'accord Dalu placide nga sarax ko ay taalibe dàllu der dalu marakis ak dàllu placide nga boole ko nga saraxe ko loo yootu mën koo jot loo lijjanti mu mën a leer say mbir dafa tege tembe ndox mooy sa sarax rawaat mali nga may wooye ani soxama tɔgɔma hɛrɛ bɛ n delila y'an ci jaamu nba n b'i fɛ n b'i fɛ n b'i fɛ damalena n fana b'i fɛ n fana b'i fɛ eh, maa ngi lay seetal dégg nga olof nba d'accord mu ne di nga am fan wu gudd dégg nga waaw dégg nga je voudrais faire euh, euh, une consultation consultation par français eh. Après le Dougat, je suis très fatigué aujourd'hui. Il y a les diables qui est à côté de moi. Mon tête là, est mal. Après le Dougat. Après le Dougat. Dindil Bakara. Ah, deuxième retour. Je parle avec toi. Maintenant, je suis très fatigué. Allô? Euh, deuxième retour. du deuxième retour Rabbi, c'est français ñëwul tey dafa xaw a borom dafa nage nage ñëwul dama nege nege Allô? dama sonn tey ñëwul Allô? Allô? Allô, na nga def. sëñ bi def ci fulla ak fay dama seetal la Sénégal la xaar de.

kere dem war na ko ne ko keneen falaat duggaat li duuf ci nag bi xajul ci cin li borom jinne yey wax nii laa mel kenn du ko wax partagé leen partage leen vidéo yi allo allo waa nanga def sëriñ bi na nga def waa lii problème maa ngi sant yaa ngi may dégg wutal paquetu suukar nga saraxe ko juróom-ñaari kiloy ceeb dafa baax day leeral génn ko hmm. ci nu mu gën a gaawee nem sopp na yàlla mu ne ba tey yaa ngi donkaasi gi jotaayu teraanga am lu ñuy taawu di la ko jox jigéen dana torox ci sa kanam góor dana torox ci sa kanam yéenewul la jàmm ayca maa ngi lay béggee bu baax a baax allo salaamaaleykum maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu tata oui man dama laa bëgg waaye man ñàkk maa bëgg wóorul waaye yaa rafet xol dama bëgg nag nga xool ma ab bu baax a baax folim kii tey bu doylu duma doyal maa lay xoolal ma mu ne yaa ngi laaj sa jàmm di laaj sa wér gu yaram waaw yaram bi tayal bi yow lay dal ñàkk nelaw bi yow lay dal waaw lekk bi nga xam ne doo lekk bu baax dangay mel ni ko stressé mbaa nga grippe wala ngay jàmbat estomac mu ne yow lay dal dawal wut benn mm. ginaar gu xonq cuur nga ñaan ci sa soxla nga génne ko def ko sarax Facebook live bi maa ngi ñëw ci ween bu leen tayal léegi ma may leen ma chérie mm-hmm. lépp lu la metti woon dana dañ Sadio dana faju ah ah ah pëli muyul luñ ma wax dolliwaat nañ waa Facebook live deux cent mille ah, ah, ah, ah. Facebook live bi partagé leen <laughs> lii de moom buñ ma ci mayoon cinquante sax ma jël la <laughs> ma chérie gaawal dugg ci Facebook live bi nga partagé commenté def lépp dolliwaat nañ leen amoon nañ fi cent vingt cinq mille boo paree nga def mu ne caaka soow sa sarax la laax sa sarax la soo ci mënee nga def ko balaa ngoon soo ko mënul bu subaa mm-hmm. nga génn ko jox ko xale yi waaw pour yàggoor gi seen diggante mën a neex waxtaan ba déggoo bi mën a am yaakaar bu tas bi ba dañ lépp lu la metti woon mu ne dana jeex de waaw mu ne après danga may woo ci 77 429 48 74 maam lu ma la wax nga def ko sangoo astafurlah misel rey na ma ay misel li ngay ruube ci suuf ay cere kewal du tëb doom jabat sa tey doonu maamam musique boobu da ciy baax ndax may siffler tuuti euh, machine rek moom moom di ensonné ensonné ay ca 88 la 628 89 90 nga bés de ngeen jokkoo ak ajaratu daba booy borom ñetti maam yi euh, kamfori kàngam bi waaye bul di découragé dangaa gaaw ci découragé utal ndoxum géej nga sangoo ko waaw te ndoxum géej nga sangoo ko loo yootu di nga ko jot te loo lijjanti dina gaaw man ajaratu bi ndaw bi maa la ko wax sëriñ bi mu ne looy waajati bu ko wax del nëbb say mbir ta nga moytu bruit boobu dafa dem dem na Facebook live bi nañu ma jox noo ay ca am jox ma noo rek ma ma ma ma jàllale leen am jox ma ay ayca rek ah, kéwal du tëb doom jëbbat sa tey doon maamam ah, partagel ma yi ñu teral leen ba ñu tedd te dara du yëngu ah, ndax nag dërëm bi génnul gaal gi may ko une rek mu tibb ñëwaat ay ayca partagel ma noo wi ñu daal di leen di wane bu baax a baax ci 88 628 89 90 ku nekk noonu ku ci gën a commenté par nga jox ma ko ñu may ko cinquante mille

ba top li ci top waw ay ca maget leen di sama yaram dafa tang di amana na keneen commenté wala ma jël appel tombeeg ñu commenté allo salam alaykum señ bi na nga def dañ doon asonel xalé rek na nga def wa alhamdullilah accepté len fofu yow bu bëggoon na sétal ma ah, mën nañ changé rek ci kanam nga joxaat ma ko ma may ko léegi juróomi ah? junni allo nanguwul jël ba léegi allo jël nañ la jël nañ la jël nañ la wa ki jël nañ ko ki fu mu dem ni ay way 88 la 628 89 90 ngeen bés 2 nday chambu ci bu gay ma ngi lay xaar defal appel ding ma jot nday chambu ci bu gay allo géeru mor bobu nga xamne ya teral mor mor neena yaw señ bi na nga def waaw ça va alhamdulilah. maa ngi lay ziar di la kontaane de señ bi. maa ngi delloo ziar bu baax. waaye solal sa benn mbubb waay nga simmi ko dem joxe ko taalibe waay. ah d'accord waaye wutal ma ñaari meew waay nga boole koog meew bu gàtt bu ndaw bi damay bañ a def publicité. amul benn problème. boo ko saraxee ci kàttanu yàlla na nga ma woo ñu dindi gàllankoor yeeg yaakaar yu tas yeeg bopp bu tëju beeg stress bu bari bi. amul benn problème. waaye sëñ bi loo yootu mën nga koo jot xoolal ku la mat bàyyi nga teral ko lu weex. mbasin wala dara. amul problème incha allah. d' accord boo ko defee di nga ree dégg nga. amul xalaat bu bëri bi doo ko bàyyi te xam ne yaa ngi daw si di ngeen wax ba d' accord. Sénégal abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification Sénégal Labok, la chaîne des grandes valeurs